ma wàccoon ci aad ak samud dana wàcc ci Sénégal. lu taxutoon ak loolu. mbugal ma wàccoon ci aad ak samud dana wàcc ci Sénégal. ñu ngi sant yàlla ci buntu boobu bu baax. ñu ngi sant yàlla ci buntu boobu bu baax a baax. maa ngi wax ak yow yow Léopold Sédar Senghor. bàyyi na yow Léopold Léopold Sédar Senghor mi ngi wax ak yow. lii bu mu xamat. lii bu mu xamati. bu xamatee. su xamatee. da nga ko gis bu soobee allah. ndax yow doo suñ kilifa ci diine. ndax yow doo suñ ci diine. ndax doo sa ab jullit. te ko mos a doon. tey doo ko mos a doon. dégluwuñ la dara ci diine. dégluwuñ la ci diine ji. te itam duñ la ci mos a roy. te it duñ la ci mos a roy. diine ji. diine ji. diine yàlla la. diine yàlla la. mu wàccee ko. mu wàccee ko. jaarale ko ci yonenteem bu tedd boobu. jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. muy Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. muy Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. moom mi nga xam ne. moom mi nga xam ne. wàccee na xadis yu bëri ci julli juma. wàccee na xadis yu bëri ci julli juma. ba ne sax ku ko bàyyi. bële sax ku ko bàyyi. ñetti yoon yu tegalantoo. ñetti yoon yu tegalantoo. yow naafeq nga. naafeq nga. buñ bind ci téere boo xam ne. buñ bind ci téere boo xam ne. duñ ko faar te itam duñ ko mos a euh, wëlbati. boo ne duñ ko faar te duñ ko mos a wëlbati. wax na sax ne. wax na sax ne. ku ko bàyyi. képp ku ko bàyyi moom julli juma. sànni nga sa diine sa gannaaw yi gannaaw. sànni nga sa de duñ ko mos a ba. ñun de ko mos a bàyyi. incha allah incha allah. Senghor maa ngi lay lentulu ci yàlla. yow Senghor bàyyi ne mi ngi lay lentulu ci yàlla. lii bu mu xamaat. lii bu mu xamati. réew mi réewum jullit la. réew mi réewum jullit la. réew mi réewum yonent bi. réew mi réewum yonent bi la sallallahu alayhi mi. réew mi. nekkul réew moo xam ne. du réew moo xam ne. dañ fi aaye julli. dañ fi aaye julli. loolu mënta nekk. loolu mënta am. maa ngi lay lentulu ci yàlla ne. maa ngi lay lentulu ci yàlla ne. ne lii bu mu xamaat. lii bu ndax ñun duñ la roy. ndax ñun duñ la roy ndax doo jullit. doy nañu rek. doy nañu rek. ñu roy la ci àddina. ñu roy la ci suñu àddina. doy nañu rek. doy nañu rek. na yow yaay suñu njiit. yaay comme ni ñu ko alquran waxee. comme ni ñu ko alquran waxee. wa atiu llaha wa rasuluhu. wa atiu llaha wa rasuluhu. wa ulil amri minkum. wa ulil amri minkum. ulil amri boobu rek lañ la mën a jox. ulil amri boobu rek lañ la mën a jox. ñu ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla it. fii ci Sénégal. fii ci réew mi nga xam ne mooy Sénégal. ak mboolem jullit yi. ak mboolem jullit ñi. yàlla dëgëral leen. yàlla yàlla dëgëral leen. nasaxal seen pexey noonu. nasaxal seen pexey noonu. képp koo xam ne bu ko yàlla xalagee. diine ji nekk ci noflaayam yàlla na yàlla xalag kooka. képp koo xam ne bu ko yàlla xalagee diine ji nekk na yàlla xalag kooka. baatab dëgg te muy laa ilaaha illallah yàlla na yàlla yëkkati ko. baatab dëgg te muy laa ilaaha illallah yàlla yàlla ko. ummal islam ñi nga xam ne ñooy taxawee diine ji yal na yàlla dëgëral leen. ummatul islam ji nga xam ne ñooy taxawee diine l'islam yal na yàlla dëgëral leen. yal na yàlla dëgëral mboolem jullit yi. yal na yàlla dëgëral mboolem jullit yi. yal na yàlla sàmb mboolem jullit yi. yal na yàlla sàmb mboolem jullit yi. ñu jàng fatiha benn yoon. bàyyi na ñu jàng fatiha benn yoon. ak ñetti salaatul fatiha. ak ñetti salaatul fatiha. ñu ñaan yàlla. ñu ñaan yàlla. sàmm diine ji. yàlla sàmm diine ji. sàmm ay ñoñam. sàmm aw ñoñam. taxal ak mboolem ay noonam. taxal ak mboolem ay noonam. bismillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين